mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen jaare di leen bégg bu wóor yéen ñi xam ne yéen ñu topp sunu chaîne bi di Wade TV Pire ñoo ngi dellu si ak yéen si ñaan yi xam ni moom la leen di indil ci seen chaîne bi di Wade TV piir ñu leen di ñaan yéen ñi xam ni abonné gu leen ngeen di woy di abonné di partager video yi ca di ko aimé tey nag ñoo ngi leen di indil ñaan gu am doole lool muy bayra boo xam ne bayra bu saf sàpp la képp koo xamante danga nekk si barab bëgg nit ñi di fa fekk wala nga nekk si kër bëgg nit ñi di fa fekk jëfandikool ñaan gii ñu lay wax waaye laata loolu ñu ñëw ak yéen di leen wax ni am na ay jaaro yu ñuy liggéey yu am doole lool yoo xam ne day dox si bayre di dox si wërsëg ak kaaraange am na ay foqet nag yu am doole yu ñuy liggéey yoo xamante ni képp koo xam ne mos nga ko di nga xam ni mus nga loo xam ni musoo ko mus ñu leen di wax ni képp nag koo xamante nii bëgg nga bayra tamit man nga noo woo waaye ñu leen di wax ni képp koo xam ni dangaa bëgg a listixaarlu man nga noo woo ñu taxawal si ak ay sarax yu leer yoo xam ni yépp sa diine dina ko nangu kon mbokk yi yéen ñi xam ne yéenay topp sunu seen bi ñu ñëw ak yéen ci ñaan gi xam ni ñoo ngi koy liggéey ci suuratul naj mi nan lañ koy liggéeye boo ko bëggee liggéey yaa ngi bind saar bi waaye nag nii ñu lay waxe noonu nga koy binde dangay bind 61 aaya moo ci nekk boo koy bind dangay wut aaya bu ne nga bind ko ci benn këyit ba mu jeex muy 61 këyit soo ko bindee ba mu àgg nan nga koy jëfandikoo dangay wut 61 bopp jën bopp jën bu nekk nga ubbi bopp bi def si benn aaya soo paree nga boole ko bu dee place la wula kër la nga gas ko fa suul ko fa incha fa nga bëgg mbooloo mi fekk la fa foofa rekk nga koy def incha allahu mbooloo dina la dikkal ci côté bu ne di la ñëwal incha allahu mbokk yi ñu leen di wax ni képp koo xam ne nag bëgg nga ku la ci taxawu wala nga bëgg ku la taxaw ci mbiri ñaan ak ñaan gu mën a doon moo xam dafa am koy bëgganteel moo xam daa am looy xëccoo wala coow topp la nga bëgg coow la fay ba ci mbiri yoon mën nga noowoo woo sunu numéro yi 77 541 02 70 kon mbokk yi ñu leen di wax ni ngeen di wéy dinu topp incha allahu ay njariñ rekk na leen di indil jërë ngeen jëf